waaye baax na Pape Abdou ginnaaw bi ñu nuyoo ndax li lay félicité mooy réussite boobu yàgg na nga koy muñ on ko wax naa ko barki démb jooyoo bis bi ñëw na tey nit ñi ñëw leen en lay ci am na sunu borom gis nga dogal na ko ci tey nan nga jàngati situation jàngatuma ko nenn lu dul sant yàlla si alhamdulilahi rabbil alamin laay wax li ma war def naa ko du ma tiit duma ragal du ma tapet gor laa ci dëkk bi laa dëkk tekki fii te di fi def teraanga fu ma neex ay daagu bokk ci famille bu baax di noobuli teg ci képp ku fi def sa yëfu baax dool ak sa yëf lu lay xeebe kooku yow la engage du dëgg ay millions laa jël fay ko du dëgg organiser def ci coono sonal leen yéen ameel leen ak ameel ko amateur yi ameel ko suma sponsor ameel ko waa diaspora bi ameel ko ñëpp kon man gàcce ngalaama wàcc naa keneen nag koo xam ni yàlla def na ñu yare la neneen ngam men neneen di doxala neneen kooku yow la engagé le reste j'ai pas de mot à dire parce que le dernier moo ne me revient pas lamb soxla na ko ak fi lamb toll jafe-jafe yi euh, Cheikh Mouhamed Fadal da ngay doon sama sëriñ hmm. maamin hmm. am na question yoo xam ne du ma ko bëgg ñu di ma ko laaj hmm. parce que man damay tàng non dama lay wax non dama ni du question duma ma tàng man nit laa lii dafa neexul dafa naqari mais boo ma nee ay lii ndax lamb soxlaw na ko yow yaa ma gën a xam ni image yu mel nii mindeef soxlaw ko di ko jis parce que dañoo yor njaboot gis nga doomu aadama bu ñu demee ba jël ci ay nit ci set millions sénégalais nommé leen defe naa ni leneen lañ doon xaar mais du li ñu image yi ñu gis tey. ku xam ne xool ngay waxee lu tàngal sa ñàkk teggin la ñàkk yar lépp loolu mais nañu des ak seen ñàkk teggin ak ñakk ngor. d'accord dama ni. tu me dis que Waalo xol laay waxee. mais man nit laa. damay am lu ma naqari. damay sant yàlla ba ma nit ñëpp xamee mais ku xam Pape Abdou Fall xam ko bu baax dee moo a gënal dund. sama yoon newu ci man duma ma juge du ma àttekat du ma police du ma gendarmerie. du ma CNG li ma war mooy wàccoo naag ñoom wàccoo naag amateurs yi wàccoo naa ak journalistes yi wàccoo naag téléspectateurs yi lamb ji di woon direct. amee loo kenn dama ko def direct à la dernière minute pour bëgg lu neex Sénégal mais gàcce laa mujjee. comme combat bi àggul en tant que promoteur après lu mën a xaar. loolu sama yoon newu ci. yaa dama koo dégg dama ko tëgg. dama ni. maa ngi toog di déglu ñi nga xam ne ñoo yor làmb ñoo koy gérer. bu ñu xasee ba jël décision. danaa leen woowaat toog waxtaan ak yéen. merci li la war lépp def non non du question gàcce man aw ma gàcce déggoo ma de. waxin laa la wax dama ni Sénégal tey. gàcce moo fi am def nañ li ñu doon def mais xaaruñu woon ci làmb ju ñu puus ñaari at troisième année bi ñu ñëw di tegal plateau bii. mais bi loolu suñu devoir ñun man def naa ak yéen loo xam ni du sax sama wàll. def naa ak ñeneen loo xam ne du sax sama wàll pour parfaire mais dafa am loo xam ne liggéeyu CNG la man du sama liggéey. donc le sama yoon newul ci loolu bu ma dugal man wax def loolu kañ bu mu la naqari mani yow Abdou Fall moom kenn du ko jam naa ni.